wala oustaz dem na Dagana ak Moodu point yow boobu dañuy xam ne mooy ne da bëgg a wax ne lan Moodu tamit dem na Dagana mooy bu dee boobu mooy cas boobu nag day dëgër mooy manoo ne bokkuñu àtte ñoo bokk àtte mooy ne àtte bi bi bi ku njëkk ci am oustaz dem na Dagana ak Moodu mooy Moodu tamit dem na Dagana mooy bu dee cas boobu tamit mooy affaire boobu day dëgër léegi mu des beneen moy bo xamante ni euh dañuy cité ben ben ben ben mbir ba pare def deux points moy di pour expliquer affaire bi wala pour joxe léegi joxe affaire di joxe di lim nak ay mots boudé bobu moy né affaire bi day am doole ndax par exemple euh, bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne am ñett yo xamanteni ni ñett yoo xamante ne ni dafa war ju jullit jullit bi bésu àjjuma mooy àjjuma dafay war ak jullit bésu àjjuma mu ne mooy bu njëkk bi mooy sangu farata soccu sangu farata soccu ak parfum ak parfum wu parfumé wu léegi foofu mooy ñett yooyu noonu mu wax mooy ñett yooyu noonu mu wax noonu mooy ne dalay wan mooy day am doole mooy el yiñ dugal noonu mooy sangu farata parfum wu wu ak soccu ñett yooyu mooy affaire bi day am doole loolu nag moo tax ci kaw loolu nu muy amee doole mooy ne dane dafa wan ci jullit bu nekk bés àjjuma fi mu lay wane ne day am day am doole mooy wane ne foofu ngay xame ne nag kon dañuy xam ne parfumé wu mais du farata mooy du loo xamante ni dañ naan par force da nga koo war a def lool lool moom mooy daal ay ay moo moo gën moom man nga koo def mais nag kenn duñ gis kenn ko parfumé wul ñu ne ko yow am nga bàkkaar ndax parfumé wu loolu ñëpp xam na loolu moom dañ cee d'accord beneen affaire bi muy socc mooy ne il est fortement recommandable ci diine ji surtout bala ngaa bala ngaa jàpp ak yooyu nga def ko mais du ñu gis ku sottiwul ñu ne ko yow am nga bàkkaar kanta sangu set bi léegi kon dañuy xam ne kon sangu set day jël àtte ñi ci des day wane ne kon sangu set jouru àjjuma du farata kon ndek moo tax ñi nga xamante ni boroom xam-xam yi nga xam ne rahmatullah ñoom dañu ne kii dañu bokk na ci tegtaloo kii bi exemple bi bu ñuy bu ñuy wane ne sangu set kat du farata du farata jouru àjjuma bu dee cas bi mooy affaire bi day am doole lool moo tax nga man cee jànge lan ne sangu set kon du farata ndax soccu di soccu jour àjjuma du farata parfumé wu jour àjjuma tamit du farata léegi mu des beneen affaire mooy boo xamante ne nii dafa am benn concept boo xamante ni comme bu yàlla ne dafa am benn concept bu général léegi nag ñu wax concept bu ba pare di lim naan di lim par benn naan e e lim dara ne waat e muy comme cas bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi dane juróom juróomi mbir ci fitra la bokk mooy yàlla yi nga xamante ne yàlla du koy bind nit bu bindee nit da koy def ci moom nga xam ne bokk na ci ay dagg la ay kii ay naanoog ay kii kii wey dagg ay ay ay we ci la bokk dagg dagg karawu mooy wat tamit ay ay ay karawu poqataan ak yooyu noonu mu mu mu kii noonu mooy ne yooyu noonu foofu mënoo boole yëpp ne ñoom ñëpp ñoo bokk même at ndax concept bu général la te concept bu général bi lay wane du loolu mooy li mu yim boobu cinq la wax am yeneen yoo xam ne dix la wax te yi mu lim bu ci nekk am na yoo xamante ni ñooy bokk comme ni ñu waxoon sànq ci ci kaa bële ñu jóge sànq. ñoom ñoy bokku même ay àtte mais amna na xamanteni bokku ñu bokkuñu moy côté bob bu dee yooyu concept bu général lu nekk ay yu bari yoy di nekk ci digënté bi moy né bu boobaa du dëgër mu am nak benen affaire bo xamanteni man na naa dëgër moy bi sallallahu alayhi wasallam ne bés dina ñëw jamono dina ñëw dina dox ba ci kanam euh nit ñi ay nit yu nekk ci biir xétam yo xamanteni dañuy daganal dañuy dagaral soa euh, la waxoon ak euh, moy instrument musicaux yi ak euh, waaw sangara yoyu lolou par exemple fof dañuy xamante ni ñom ñep ñoo bokku at ndax lan dañuy daganal loy daganal nak yow da fe kon mu lan mu haram kon nak ci lañuy xamé né kon képp ko la nane ay da nga nane ko li mu nekk da haram ndax lan ndax dañ koo da mooy lu ñuy jéem a daganal la léegi nag képp ku fi ñëw moo xam nañ ko tuddee boroom xam-xam bu mu man di doon naan la dagan na danga naan ko mais affaire bi yonent bi sallallahu dane ñoom dañuy daganal te daganal ci lislaam yàlla moo koy def jaarale ko soit mu wax ko ci alxuraan wala mu jaarale ko ci làmmiñu yonentam sallallahu alayhi wasallam léegi nag comme que je yooyu mooy kon amatul ku mën a daganal léegi nag yow ba pare nee woon na ne ñii buñ ñëwee dañuy jéem a daganal yi léegi bu amee yow nga bëgg ne dafa dagan kon mooy yow da ngay jéem a daganal te li ngay daganal dafa fekkoon kon daganul léegi nag yi mu waxoon noonu yëpp ñooy bokk même àtte mooy ne yooyu yëpp dara ba yëpp ay xaraam kon léegi nag mu des beneen beneen exemple boo xamante ne nii mooy comme bu bu bu yàlla ne euh, wa atimmul hajja wal umrata lillah kaabu mel noonu nga xam ne dane wa atimul xajja na ngeen matal aj mooy boo demee aji màkk par exemple mooy ne man manuma aj ba ba ba ci digg bi ñëw ba jour jour arafa par exemple ma ma kii ba ci yàgg ne no mais man daal affaire bi léegi doyal naa quoi maa ngi ñibbi rek dem sa yoon yow boo ñibbee cent boo ko dundoon tamit dañ naan la hé dellul boo boo dëkkoon Argentine dañ naan li demaatal ba màkk nga àggale li nga kii woon yow fekk defaatoo ko mooy day day mooy day gàllu sow loos par force da koy def par mooy commencer mooy aj mooy li nga xamante ni manuma ñëw ba ci biir ne commencer xam nga am na yoo xam ne sax dafa am wuute comme koor kooru naafi la am na boroom xam-xam yi nga wax comme jumhurul ulama ne boo ci duggee ñeen nañu pas sax ñoo sax nga xam ne boo ci duggee muy Shafi'i yi xanaa bi xanaa bi lay ñoom bu la neexee nga mën a retiré wu mooy lan ak xanafiya yi tamit waaw xanafiya yeeg maalikiya yi dañu nekk fee sa xanaabila yeeg saafiya yi nekk fële mooy lan koor gi yow bu dee man damaa woor wooru naa fi la bu ma neexee ñoom dañu ne boo demee ba ci biir ku man nga jekki-jekki nga ne nga nga boo naanee wala nga bàyyi koor gi grawul bu dee xanafiya yeeg saafiya yeeg xanaabila yi alors que maalikiya yeeg xana kële yi waaw si si waaw loolu la si si ñoom dañu ne ñoom mën na nekk alors que bu dee Maalikee rahmatullah ñoom dañ naan la déedéet <coughs> affaire bi da koy àggale par force mooy wuute boobu am foofu sax daa amul fële ak moom ñépp d'accord ne man bu ma ajoon ba benn ba ba neex ma pareegu ma ma ma ne man doyal naa wala damaa sonn <coughs> affaire bi daa bari ay nit o oh, puusante bi man xaw ma yii maa ngi dem ñibbi gedd dem <coughs> boo defoon quatre-vingt-dix ans sa dëkk tamit képp ko la ne demal ko laaj mu borom xam-xam bo laaj te waxu la demal del ki ko da wax ay moy ne par force dang koy def ak non da ngay dem agale ko la yalla wax ndax yalla mo ne wa atimul hajj na ngeen matal aj wal umrata ak umra umra moy aj gu ndaw gi mom lañ nane aj gu ndaw legi léegi nak mom bobu mu ne na ngeen ko matal tamit lillahi ngir yalla ngir jëmmu yalla ji rek tax legi bobu moy am nañu e ci digënté bi wa atimul wal umrata aj ak umra moy ñaari móole yuñ boole mais fofu liñu ñu bokk ñoom fi bokk ñaar moy ne kuko ko commencé par force dang koy agal moy ne man umra ak lepp ci yem buma par exemple mané dama ko dama comme gis na ni ngeenel yonent bi sallallahu wax na ngeenel ci umra ki wéru weeru ko ma dem ma dem aji ma dem umra ji manumaa toog ba mu neex ma ma ne mais man doyal naa maa ngi dem sama yoon te jeexagul déedéet yow foofu mook aj ñoo bokk mooy dangay ngay dem àggale ko par force ak at yoo man di def même bu doon cent ans moo fi moo moo dox bu doon mille neuf cent nga ko defoon ñëw ba deux mille boo laajee dañ naan la demal aj ja defoon mille neuf cent nga àggale ko deux mille boobu foofu lañ bokk mooy ni par force ñoom moom ñoom fi ñu bokk mooy ku ko ku ci dugg danga koy àggale mais nag fi ñu fi ñu différencier yow mooy ne affaire bi ak obligation la mooy nga nga commencé koo ku ko man ku ko man ci l'islam obligation la ci moom te umra kenn du ne yow man nga umra par force da ngay umra ji déedéet mooy ñoom foofu lañu différencier yow ci gàttal loolu moo doon dilaat l'islam mais nag fii nii li ñu considéré woon ci hadis bi mooy ne ñoom Hanafiyya rahmatullah alayhi ñoom ñoo ko utiliser woon ñoo ko utiliser ci hadis boobu ne wooy comme que yonente saa sallam dafa tere ku sangu ak ku saw kon nak ñaar yépp xaraam lool mo taxone ñom ñu ne ndox momu noonu de toute façon kenn mënu ko utiliser moy masala masala de yi nañu ko kon doon dernier bi muy as-sabr wa taqsim doon dernier euh, bi ci masala usuliyya as-sabr wa taqsim bobu day ci recherche moy boy trouver cause cause lan par exemple l'islam wala charia tere dara foofu lay situé moy par exemple ñu ne comme bu yalla téré sangara ñuy lan mu a wala mu sangara bo ci comme day exemple ñu day am ay e-, mais <clears throat> affaire bi légui di xol lan mo len mais dañuy xol lan motax bi yalla téré mu jël yi lan motax par exemple bu yaronte bi sallam ne euh 5 dafa am 5 yo xamanteni ni nii mu ne xamsun fawaasiq wala khamsun minal minal minal minal khamsun kulluhunna kulluhun kulluhunna faasiq am na cinq yoo ñépp waaw kay tuxtal dañ koy ray fil hilli benen bi mu fil hilli wal haram benen bi fil haram legi moy dafa am 5 animaux yo xamante ni sa xamsun min ad dawab 5 ci animaux yo xamante ni ñoo dañu genn top moy ne dañuy sonal nit ñi man nañ leena sax gaaj kepp ko xamante nak yaagi ci aji moy bo ñewé di aj moy yu bari dañ na koo tere nga def ko mooy yow mano di aj ba paré picc mu la romb nga nga né chasseur la rek picc mu ma romb ma chassé ko yow yooyu yëpp dañ la koy tere mooy yu bari lañ lay tere léegi nag mu ne nag kan mu mu indi mel ni loo xamante ne nii exception la mu ne nag cinq yi quant à cinq yi moom mën nañ leen a rey foofu mooy waa ji nga xam ne mu ngi ci biir ak ji mën na leen a rey te am benn problème léegi mu ne mooy bu njëkk bi mooy alxuraabu mooy baaxuñ yéeg ceeli euh, euh, charognard boobu nga xam ne mooy lekk mooy lekk kii mooy séddoog euh, bukki yëg yooyu kii gaynde yi rey mu mu boobu ak alxidaatu alxidaatu tamit ñoom mooy mooy bi nga xamante ni day këf léeg-léeg nga gis ko mu jekki rek naaw ñëw ci poulailler rek wala ay poulailler yoo xamante ni ci biti mu gis ay ginaar rek këf leen daw ci mu mel noonu mooy da mooy dañ am na yu ci mel noonu mooy léeg-léeg sax nga gis da gis ñu topp cuuc yi rek këf yobu wala sax ñu gis ay ay njomboor sax dañ leen di yanu yóbbu ah ci all bi mu ne bobu tamit man nañ ko ray waye tamit al aqrab muy jiit mu ne jiit tamit man nañ ko ray? mu tegaati après jiit mu ne tamit al al aquur moy xaj bi nga xamanteni mom ci mbedd mi lay nek ku ko rombu rek mu sakal la fex soit mu mu màtt say tànk wala mën na laa sax euh, rey mooy mooy xaj buy karaate rek buy boo xam ne day day Babacar naan loolu boo ko mooy boobu ak alfaaratu mooy euh, jinax yeeg kaña kaña yi ñoo jinax yi mu ne cinq yooyu mën nañ leen a rey loolu mooy premier exemple beneen bi mu ne mu ne yàlla dafa tere mooy yi ma dafa xaraamal ku jaay mooy mooy dafa xaraamal yàppu mbaam ku jaay euh, sàngara bokk sàngara yàppu mbaam ak deret non médd médd sàngara yàppu mbaam ak euh, mooy idole yi ñuy jaamu gaa yi doon jaamu rek xërëm yi waaw kay mooy boobu dafa am ay mooy léegi nag laaj bi mooy as-sabr wa mooy lan moo tax mu dajale yooyu noonu est-ce que am na cause bu tax mu dajale yu mel noonu yooyu noonu cité leen boole leen foofu tereendoo leen léegi foofu dañu naan bu dee cas bi mujjee jël nii dañu naan dañuy xool premièrement boo njëkkee ñëw li ngay def mooy danga naan damay xool lan moo leen relier bu dee dane dafa tere médd ak sa ak ak ak kële bu dee dafa tere médd yàppu mbaam mbaam bopp mbaam ci boppam alxinsiir ak deret ak xërëm léegi yow man nga njëkka ñëw ne peut-être cause bi leen boole mooy ne ñoom dañuy dund nga nekk léegi boo nee loolu da ngay xool par benn nga ne waaw médd moom médd non Mbir moom moom moom dundatul de toute façon mu ngi doon dund ñu ne kooku dundatul mais amoon na daal ak dund ñu ne kon jàll. boo demee nag ci mbaam nga ne mbaam tamit da doon dund kon peut-être ba léegi am naa mais boo ñëwee ci sàngara nga xam ne ah noo sàngara amul am bu muy dundee benn bakkan bu muy dund kon nga ne kon cause boobu taxul. kon nga ne kon cause boobu dama koy dàq mooy cause boobu léegi boobu taxul c'est sûr que taxul. ndax bu doon moo tax kon bu ci nekk daa waroon a nekk luy dund ma ne kon léegi ñu seet leneen euh, peut-être kon cause bi yooyu mu boole noonu xëy na kon mooy dañoo sobewu nga commencé nga ne médd ah waaw loolu médd moom dana hurrimat alaykumul maytat tere nañ leen araamal nañ ci yéen médd kon ma ne waaw ah, kon médd kon dafa xaram mooy ne sobe la bi ci des muy mbaam nga ne waa mbaam tamit moom moo moom moo tere laxmul xinziir kon moom so te moom ne sobe la nga ñëw ci côté deret deret bi mu ne bi ne dama leen damaa xaraamal ci yéen médd ak deret la ci teg kon deret kon it dafa sobewu nga ci xërëm yi Ah, nga ne mais xërëm moom est-ce que dafa sobew ndax xërëm mën naa nekk bant bu ñu yat bu benn menuisier yatt rek ñu ne la waaw xërëm dafa dafa sobewu mais nag sobe sobe maanaa la yoon mooy du la ngay laal bant bi mu da laaj sobe bi déedéet mais sobeek maanaam mooy ne moom moom ci boppam dafa sobewu mais pas dañ koy laal di ko daj kon nag ñu xam ne kon ndeke affaire bi kon léegi bu mel noonu rek léegi nag lu lay jariñ mooy boo xamee lool léegi nag damay mën a jóge foofu beneen affaire boo xamante ne nii dafa am sobe sobe dafa sobewu rek léegi man dootuma ko mën a tee jaay tam comme que dafa tere woon ku jaay yii ñu xool ne cause bi tax mooy ne dafa sobewu kon léegi mooy sobe man manatuma koo jaay ak nu man di deme loolu moo tax manumaa jël par exemple sama deret ne gaay dañuy kii ma jëw jaay moy loolu mën da nek ndax deret dafa sobewu ainsi de suite ainsi de suite légui tamit moy bu dañuy ñëw ci exemple biñu njëkkoon a joxé bobu man nga né animaux yooyu ñu lim peut-être cause bi moy animaux li ndax bu kaña wala jinax moom animal céeli bi walla yooyu bu céeli bi moom animal la beneen bi mel ni moom te muy këf ginaar yeeg yooyu moom it animal la mais euh, jiit scorpion moom animal la dernier bi euh, bii daam bii amul bii du bi am jan suur bi waaw kay euh, bobu no suuri bi wax naa ko mooy jaan bi dëgg noo mënaan jaan bi alxuraabu alxidaatu waaw kalbul aqur mooy xaj bi xaj bi karaate moy ne boobu tamit dama nan animal animal legui buma ne cause bi kon peut-être kon li moy cause bi fi lay wonne li du cause bi moy dafa am yenen animal yo xamantene ni yow waji man na naa am na possibilité ray len comme ay ginaar yooyu man kon da léegi nag foofu dangay delloo ci lan kon affaire bi kon du ne animal nga ne kon nañ nañ jëlaat beneen cause nga essayé beneen cause nga ne kon xëy na kon ñoom dañuy loraate ndax jaan non kii kaña moom day lor mooy loo fi teg danaan ko tëf yóbbu boo fi tegee sa bagage inattention boo am bu affaire bi di ne teg mu koy këf di daw mooy day loraate baaxoo ñi waxoon nañ leen ni ñuy def ak ak beneen biy këfaati mooy dañ lay yàqal xaj bi moom moom yow nit ki sax mën na la rey ak bi ci tegu léegi yooyu yëpp dañuy gis ne kon ñoom ñoo bokk lan mooy dañuy loraat kon nag ci ngay jëm ci ngay commencer nag nga ne léegi du ma yem fii mooy ne kon waa ji nga xam ne dafa nekk di aj noonu xam nga dañ ne woon dañu tere moom mu mu mu mu rëbbëg yooyu mais yii dañ ko defoon exception léegi nag kon mooy bépp lépp loo xamante ni tamit day loraate nekk ci kaabo comme jaan bi ndax am na beneen xadis yooyu effectivement bu wax jaan bi comme jaan bi loolu moo lay wan ne sax li tax beneen bi ñu nekk mooy ne affaire bi kon seen cause lan la mooy dañuy loraate kon nag lépp loo xam ne dalay lor foofu nga xam ne booy tawaaf wala yu mel noonu wala ngay dem Safa ak Marwa na la gaañ am na niveau boo xam ne mën na la gaañ day lorate koku dañ nan koku tamit man nga ko ray lolou moy asabru wa taqsim legi ci kaw lolou moy ne masala yu jëmoon côté bobu jeexna na alhamdullah wa minnati legi nu ñuy dem ñu continue ci waaw kon mu dess masala yi nga xamanteni moy yer benen partie hadith hadith ensemble hadith bi nga xamanteni ni moy numéro 6 bi ak numéro 7 bi euh, numéro 6 bi ak 7 bi nak mo don hadithu wa an rajulin sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam moy bi nga xamanteni mom daro daroon dane lan dan euh, Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari rahmatullahi alayhi dane man dajena ko xamanteni ni dafa àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 4 ans comme ni Abu Hurayra radhiyallahu anhu ando won ak yonent sallallahu alayhi wasallam mom mo waxoon hadith bi na yonent sallallahu alayhi wasallam dafa téré ci ñun ki goor ñi kuy feñawu sa jour ak ko xamantene ni day day saw day saw fi mi sango moy da dafay saw ba bari ñew saw sax fi mi sango fa lay saw ak ko ak tamit jigen guy sangu ci dessutu goor ak goor kuy guy sangu ci dessutu jigen waaye nañu asandoo ñoom ñaar ak xadiisu beneen bi moo doon xadiisu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne boobu dane benn kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa sangu desal yonent sa sallallahu alayhi wasallam ñëw narkee sangu mu ne ko man damaa amoon janaaba mu ne ko ndox kat du janaaba wu mooy janaaba du janaaba du to du ko du nekk ci ndox mi léegi côté boobu masala usul yi nga xam ne ñoo nekkoon ci yooyu ci xadis boobu quatre la woon mu doon aljamu ak annaasix wal mansuux ak kaana ak waa kaa ak kaana léegi mooy lan loolu mooy aljamu est mooy boo xamante ni dañ koy boole mooy lan dañu am ñaari texte yoo xamante ni nii comme benn masala exemple yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, wala bu alxuraan ne li jëm ci wàllu mu ne yéen jullit ñi yéen jullit ñi mooy da leen a tere wala tampixul mushrikaat xatta min na lool bu leen takk ñi nga xamante ni ay bokkaalekatu yàlla lañ mooy yéefar bu leen leen takk lu dul dañoo tuub dañu gëm yàlla beneen aaya bi ñëw ne ñoom ne man ngeen a takk ñi nga wal muhsanaati min alladhina utul kitaaba min qablikum man ngeen a takk tamit ñi nga xamante ni dañu sangewu mooy jigéen ñi nga xam ne jigéenu soit juif yi wala chrétien yi ñooñu man nga leen a takk léegi mooy yow affaire bi boo xoolee ñaari textes yi ci kaw mooy lan euh, ñu am nak lu ñu leeral tuuti mooy buñ nee affaire yi dafa contradictoire moy ne cela ne veut pas dire que affaire bi dafa contradictoire contradiction dafa am moy né affaire bi ci yalla la jóge subhanahu wa ta'ala affaire bi amul ben contradiction léegi kay mbir mi lenn la moy mujtahid bi ki nga xamanteni amna effort amna habilité wu utiliser texte yi kooku mom mom affaire bi mën naa bañ a na lu contradictoire ci kanam mais ci yalla affaire contradictoire léegi mooy fee dañ na la manoo leen manoo takk yéefar yi fii mu ne la man ngaa takk ñi nga xamante ni ni yéefar yi nga xam ne ay juif la ñoo chrétien léegi nag ñun fi ñu jëm mooy est-ce que léegi mooy dafa am texte yu mel noonu nga xam ne day mel ni dañoo contradictoire dafa am ñaari façon yoo mën a def soit rek nga ne euh, damay essayer boole ñaari texte yi mooy fexe ba duma ci ne bële noonu nañ ko